donc ñu ñëwaat ci ci lu gën a yaatu si euh, ki nga xamante ne moom mooy Guy Marius Sagna ak Habib Sy ñu ñëw rek si conseil des ministres du mercredi 22 euh, novembre bi nga xamante ne moom moo dé mooy démb euh, président Macky Sall ñaax na ay collaborateurs am pour ñu respecter engagement am dans la mise en œuvre ci projet yi nga xamante ne jël nañ ko fële au niveau de de la de la visite économique à Kaffrine Kédougou kaw Fatick et Kaolack donc président Macky Sall mu ngi ñaax ay collaborateurs am pour ñu gën a farlu si liggéey bi pour mun a satisfaire les besoins de population yi nga xamante ne ñoo nekk foofu au niveau de la zone. donc euh, ñu ñëw si immigration clandestine immigration clandestine bi euh, nekk na phénomène boo xamante ne mu ngi euh, mu ngi lor askan mi di lor ndaw yi bu ngeen comme ni ngeen xamee ndaw yu bëri ñu ngi ñàkk seen bakkan si géej gi. donc ñu defoon benn panel boo xamante ne le rassemblement des entrepreneurs du Sénégal moo ko defoon dans la semaine. Euh, barke dem ni ki bi donc euh, ay jeunes ah jëf def nañu ay par rapport ak phénomène phénomène boobu nga xamante ne mooy immigration clandestine. man moom xalaatuma dugg si gaali yi avion yi tamit waaw dañuy xaar ba njëgu avion dugg si kii mais gaal yi moom maanaam quoi sama moom jeune yëpp laa wax moo nekk dernière chose pour loolu noonu yëpp nag mu am quoi maanaam état bi mooy jàppale jeunes yi nu mu leen di jàppale mooy maanaam du question. tey nga woole wax leen ne maanaam lan mooy seen problème ñu wax la suñu problème ba pare nga xam ko maanaam te so te ñu si état bi nag dëgg la mi ngi liggéey mi ngi def lu mu mën mais dafa am côté boo xam ne affaire bi dafay sooxee nu mu fa sooxee mooy ma mi ngi mi ngi defar nag mi ngi defar kër gu rafet kër gi bu rafetee te ñu fa dëkk te duñu si lu nooy tamit am na leneen lu ko gën quoi li ko gën nag ñun ñi ñoo mën a defar réew mi nu ñu mën a defee réew gi mooy gars yi ñoo ñuy jàppale tuuti parce que ñun ñii ñëpp dañuy xëy di liggéey ah mais lu ñuy xëy di liggéey lu ñuy fay lu ñuy fay quoi boo demee fee nañ la fay maanaam xaalis Sénégal amul njëriñ. bu ma gisul lu ma xam damay dem parce que ñoom seen doom yi ñu ngi bitim réew du liggéey ñu toogoon fii yëpp amul ku ci mais ñun bu ñu xëyee ndekki du ñuy të ñu war a jàppale suñu yaay wala jàppale suñu papa yi di dang-dange ba bëgg a di liggéey cent mille koo denc kon kooku boo gisee gaal doo dem da ngay xare ji loo am jël nan leen bàyyi ak seen réew mi ñun loolu lañ gis gëm gëm sa bopp daa mën a dépassé nga dajal yi nga dajal dem tukki ñoo daane doole def nekk moodu moodu comme ñëpp mën naa fee mën a tekki kay ankay lool mën naa nekk kay mais dimbali googu noonu ñu day fekk ñoom ñu bëgg ñoo dimbali yëkkati cent franc jox ñu mais mun mënuñu suñu dërëm loolu ay waxu kese ñu ñu ñu ñëw rek si euh, journaliste yi nga xamante ne Thiès lañ nekk mooy a Allez Sénégal nga xamante ne ñoom dañ leen inculpé woon daan leen Euh, ñu nekk si prison fële Thiès ki nga xamante ne moom mooy Ibrahima Lissa Faye moo nga xam ne moom mbootee euh, site internet yu nekk Sénégal moom adressé na benn lettre euh, ki nga xamante ne moom mooy ministre Mame Mbaye Niang Mame wax mu baal ñi nga xamante ne ñoom journaliste yooyu parce que boo xoolee ñu am na koo xamante ne mu ngi nekk dans un état de santé vraiment préoccupant préoccupant ne ki nga xamante ne moom mooy Ibrahima Lissa Faye mu ngi woo Mame Mbaye Niang pour ñu mu jéggala mu jéggala journaliste yooyu nga xamante ne Euh, ñu ngi leen téye foofu si prison ba donc ñu jeexalee rek ak euh, sport sport ah. fédération sénégalaise euh, de football def def na rek par rapport au mondial U20 di wax rek li nga xamante ne mooy inéligibilité bi nga xamante ne mooy joueur français boobu Issoufou donc ñu ñëwaat ci si lu gën yaatu ya donc lii lañ leen indiloon si si xibaar yi si Sénéinfo International ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax si teewlu bi te di leen ñaanal yëndal